ziar di leen jox seen wàccu ay yéen ñëpp te ñu ngi ñuy ànd ak toog ak mbër mu def benn open press bu mucc ayib démb Arafas la te ñu ngi fii kër Grand F kër Zarko mu woon wax nag fee xamante ne moom mooy terrain FC mais ne ka fekk biir këram comme démb Arafas lu mu def mu mënul lax ñu fekk këram mais Zarko da lay bàyyi nga nuyu mbokk yi nga xam ne ñu ngi lay seetaan ak supporters yi nga xam ne tey da indi loo xamante ni kenn mosu koo gis. Zarko looy nuyoo euh, sant yàlla rek. Euh, ginnaaw baatu onge billahi mina sheytaani rajim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 Cheikh baaxum euh, Abo Seck euh, El Hadj Ndiaye Abo Seck euh, honorable mama mama Nata Nata Samb Papis Papis Thiam Malick Malick kone Buro Thiam Basirou Basirou Samb ñu koy sant bu baax a baax moom adjoint maire Pate Ndiaye Jamel Jamel Seck Ousmane Ndiaye ñoom ñëpp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 dañu gis mbooloo mu takku génn biir mhm. mbooloo mu doy waar léegi ñu nga topp lu mooy li may wax rek boo déggee man la man maay boroom cëddeem yàq jëf guy salaan ak ngot juróom eh, eh, juróom juróom ñaari eh, fukki penc ñaari ci ndakaaru sama maamay boroom moo wan moo fii ñi fi ñëw yëpp supporters yëpp xamante nañu man ak ñoom ku ci nekk bu ma jaaxaarloo moom damay jaar ci turam ñooñu ñooñu ñoo dooleel man borom ba ñi eh, maanaam boog eh, ñi nga xamante ni seen loxo jotul seen ginnaaw ñoo ñoo ma dooleel ku ci mel ni Moussa kalaamu eh, ñoom ñoom Zak ñoom ñoom Moussa Moussa bu ëppin Joe ñoom Charles ñooñu dañuy yëkkati seen xaalis yëkkati seen million ñoom Jean Jean Malaka ñoom comment dirais-je ñoom ñoom ñoom Matel dañuy yëkkati seen xaalis di ko jox di sant aussi bu baax a baax Ndene. ndeene bu Gàmbi maa ngi koy sant bu baax a baax moom Jabel ah, ñoom Omar Touré ñoom ñëpp Insa ah, ñoom ñëpp maa ngi sant bu baax a baax sama seexu yàlla yi. Mm-hmm. Mm-hmm. ñu gis ni ñenn ñi ne da ngaa topp booy bi ci fuli xale bi <laughs> ba kenn xamul Zarko lu muy nduru mm-hmm. ak fi ko combat bi mën a yóbbu mu respecté comme ni la kii wax nee na duma dalay daan te tontu woo yaa ñu gërëm beneen bi deuxième question bi mooy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 bu loolu boo xamee ne yow loolu dina la mës a dal ci àddina rek lépp looy def war nga ko xool malgré nag ndogal mënut a ñàkk ci doomu aadama mais lépp looy def ci àddina war nga ko xool bu baax a baax parce que a na xale bu ndaw boo a ni mënagul sax wax amaana yow bëgg na mel ni yow wala mi ngi def ni yow kon donc yow lépp looy def wala looy wax rek war nga baax a baax a baax a baax a baax. a jàpp a ñëwaat. yow le 16 doo fi jóg. waaw léegi la kay incha allah yow doo dallu. déggoo ma ne dama ne la borom xaalis du ragal passement. borom xaalis du ragal ngi nii dante gi nii jegeñ ñu tout prêt te yor nañ xaalis déggoo ma ne wax laa la wax borom xaalis du ragal passement ko ñëwal si combat mani mm-hmm. Ada Fass li ngay bëri moom la soxla nen maam mm-hmm. bi ngay si moom ne loolu moo ko arrangé loo koy tontu ko <laughs> xaaral bëgg ma <laughs> Ada doo xool da ngay laajte du ma la wax dara na semba si na loole njëkk a cëpp doomu njaago du dof ma wala nu mboos ma njagu gën a ef da ngay dof dof lu yow dinga nga say bët xool hey dof bi ngay waxal de pël bu rax njaago bi pare rek yow say mboq maa la seetaan démb ngay indi ay jaan indi ay indi esat te xool maa la gën a pare dama koy yow da ñëw rek na lépp ñëw seen see xoola di laa war a sóoli may leen ko jaani ñëw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 du gis Ada Fass nga xamante ni moom lu ci ëpp ci ay combat am dañ koy gis moom bëre lay jeexalee làmbam may laaj yow Zarko ndax du bëre boobu muy jeexaleem làmbam yow da nga bëgg a jaare foofu xeex ak moom gañe ko moo tax nga am confiance bi nga saa yi mën la borom xaalis du ragal pansement sétéo ngi nii nabi sukkër ngi nii jege ñu tout près loolu rek jeexal na wax bëgg xeex bañ xeex bëgg xeex bañ xeex kon làmb ma déggee xeex bañ a xeex d'après sorti yi mu def ak wax yi mu wax yëpp wax talaku dagg yaramam wax lu ko neex lu mu santir waaw mais loolu nag yow da ngay ñëw wan ma ko yow joxe eh, yow mbooy yow bu ma wax loo ko waa yow da ngay ñëw wan ma ko voilà. mais mais gis nga uh-huh. tey nga nga sottee koog soow loolu lancement la rek. benn benn xaal bu sëñ bi sëñ bi dama la ko min woni bakan so jagi mi jagat so jagani mi jagat so ari mi arat si mi nangi moon yo seel maɓe yaltu gasi billahi wallahi maa la wax loolu dafa leer e onon bandiraɓe haal pularen min beltima no feewi on jarama allah jarama ñagane men ko balɗe ɗiɗi heddi hen ñagane men allah dokku men victoire belɗo e dow makko on jarama allah jarama daɓane men duwa kala ko ɓiɗɗo haal pular goni e nder aduna o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 ñu ngi leen di xaar bu baax a baax ci làmb ji ah Yves Braye ñu sant bu baax a baax di wax ni euh, comment dirais-je Formose Formose doomu Grand Yoff nga dañu bëgg nga ñëw jëndal bi booy Grand Yoff yi diib diib dundu gis Grand Yoff dafa def ci yow lu bari population Grand Yoff dafa def ci yow lu bari kon bul toog di seetaan ñu lay woo ñëwal nga jàppale population Grand Yoff ñu dem seetaani làmb ji Cheikh Cheikhou Kouyaté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 an min mi halta sah boy bilay boy sa accano bone waalo boy boy an annda to naɗɗa de